wàllu sorewante wuñu moom moo ngi dëkkoon 5 G4 ndax foofu la wax ay G4 G1 G2 G3 G4 5 G4 la dëkkoon ma dëkk 16 G4 su wàccee suuf di root seen chambre laay daa dugg Fallou bi ñu koy rey fajar la woon quoi bi si fajar gi noonu à partir de six heures et demi la jékki-jékki ñu dégg ay tëgg tëg tëg tëg génn leen génn leen policiers yi ñëw na bi poli bi yi ñëw na man si laa yee sama rakk bu góor bi bi ma dëkkal ma ni ko mu jug bi mu jugee bi mu jugee léegi ñu wàcc bi ñu wàccee ndax gars yi soo soo dugg soo soo génnul dañ lay fekk foofu jàpp la yóbbu la loolu lan doon bañ nag man policier lu taxoon ñu ñëw danoo defoon journée sans bi ñu defee journée sans ticket le recteur bay dalaay kan ah quatorze le quatorze moom mu bindu benn euh, not autorisé jeunes yi ñoom ñu dugg foofu noonu si campus social bi léegi gars yi bi ñu ko yëgee ñun tour de lëf lan fanaan am na fu naan benn benn benn espace bu naan tour de lëf ñun foofu noonu lan fanaan man wante man fanaan moo foofu c'est di la vérité quoi man dama jéggi jéggi ay 6 h du demi ma dégg ay tëg tëg tëg génné len génné len ma yee iya sama rakk bu gorni ko wacc nan wacc nak dañuy bañ gaay fekk ñu fi japp len avant may wacc sama rak bi wacc na man bi mu wàccee ma dajé ak mom ci souf munima amna ko xamni ku tëdd na leen dérèt da ko sang ci tank bi bi mu nee ma sang na tank bi ndekete Mouhamadou Fallou sen la ndax Fallou sen ay 7 h 40 yoy non lañ ko dóor bal bi 7 h 40 waaw 7 h 40 bi matin mom lañ ko door bal bi bal bi ci lañ ko door lolou mom man amna ci certitude ndax ci bobu si ba ma sa montre 7 h 42 minutes mo jot. manifestation yi après la won bin bin bin bin bin bin bin raye fallu ba paré ci lan dem yak étudiants yi ñu ñëpp ñu dem yak rectorat ba ak euh, dëgg ak CROUS moy centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. boobu noonu si lañ dem yàqu ko étudiants yi manifesté wuñu zemi yi ñoo ñëw fekk dugg biir campus social taxaw si buntu réseau yi yi ñoo dugg si biir campus social taxaw buntu réseau yi ñu ko joxewul tukk tike doo dugg léegi bi mu waxee loolu noonu policiers yi gendarme yi taxaw fu si lii waa comi waa coordination des étudiants de Saint-Louis ñoom ñu commencé sànni ay xeer bi ñuy sànni ay xeer zimi yi dóor ay lacrymogènes yooyu foofu noonu léegi si la étudiants yi ñëw def ful ndax campus social si la étudiants yi dëkk soo ñëwee fekk leen fi fekk la fi nga dëkk ñu lay jéem a doole étudiants yi si lañ génn def ful après ñoom ak zimi ñu xaañante foofu noonu si lañ jékki-jékki ma ma daje sama benn rakk mu ni ma am na ku tëdd fële deret sang na tànk bi. benn raye fàllu seen ba pare moom metteetul woon. ndax instant yooyu noonu ñoom gisatuñu len won ndax dem nañ ba kër mari taw gisuñ gisuñu gisatuñu gendarme gisuñu bi nga see ba ray ko moom gisatuñ ko ndax wan instant yi doon manifester wu mom pour bourse bi ndax instant yoy dañ doon wax recteur bi amul droit duggal gendarme yi ci ci campus social bi ndax campus campus pédagogique sax mën ko comprendre ndax su dé amna li lii campus social bi amul droit duggal fa gendarme yi bi mu joxe autorisation mu dugal leen fa moom moo bind note note bi soo leen ko gisee la 14 la ko bind note bi la 14 si guddi note note bi moo ngi doon daw si si biir université statut yi xam nga léegi whatsapp beeg yooyu noonu statut yi yëpp doon na daw statut yi yëpp statut yi statut yëpp doon nañ gis recteur bi autorisé na gendarme yi gars yi naan ñii di tiit naan man damay dem fii man damay wante gars yi dañoo ni ba ñu def si loolu noonu lan d AG d'urgence bi moy fa ko defee tour de l'œuf fa lañ defee AG d'urgence ñu décrété si lañ décrété 48 heures cessation des cours ñu cessé cours yi